jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy déglu ci Baol Média FM te di ñu seetaan ci Baol Média TV tey nag ñu ngi fii ci euh, tuuba dikk ak euh, sëriñ Saliou juuf di euh, borom jinne yi sëñ Saliou dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu dikk ci ñetti question yoo xam ne nii yitteel na réew mi yitteel na ñu lay déglu ak ñi lay seetaan. waaw sant nañ bu baax maaleykum salaam alhamdulilah ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi di ñaanal suñu muntaxaa yàlla suñu borom yàggal ko fi lool. ba lépp loo xamante ne naan naa ko ci liggéeyal ko seexul xadim yàlla suñu borom defal ko comme ni mu ko bëggee di nuyu sama sëriñ Cheikh Mamadou Diouf di nuyu suñu kilifa gu baax a baax di suñu mag di suñu xarit suñu Aliou juuf di nuyu waa kër gi ñëpp di nuyu waa Tawfiq di nuyu waa Touba di nuyu Murit di nuyu Sénégal ñëpp di naan leen yàlla na suñu borom def fi jàmm defal leen jàmm ak Tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëñ Saliou laaj bu njëkk bi dama koy doore ci sëñ Saliou borom jinne ci lu yomb loo xam ne nii moom lay seete te mooy ab dërëm man bi ma ko déggee daf ma def kumpa waaye ba ma ko gisee ci laa xam ne weddi gis bokk waaw dërëm de daanaka daa bokk ci alalu jinne te sëriñ boo képp ko sëriñ boo xamante ne yaa ngi ñaan ci àdduna ne seete woo dërëm soo seetee mille francs soo seetee cinq cent soo seetee euh, deux mille cinq cent ba ci cinq mille ba ci dix mille yaa ngi lekk loo xamante ne wóolu la parce que di nga dem euh, nit dina ñëw ci yow seetlu nga seetlu ba pare yëkkati ñaari junni jox la wala mu yëkkati euh, cent francs jox la nga lekk cent francs yooyu wala nga lekk ñaari junni yooyu seetal ko pare te gisoo ko te doo ko delloowaat ndax amul benn sëriñ buy delloowaat xaalisu seet déedéet looloo tax ñu ñuy seete dërëm soo ñëwee ñu xoolal la te ku ne xam na ne dërëm ci alalu li jinne la bokk te seet moom soo ca génnee jinne ak i rawaan xamatuma lu fay des. gis nañ ne itam euh, wala boog nemmeeku nañ ne yow booy ñaan doo laaj xaalis dafa mel ne ay sarax rek ngay laaj ndax dangay ngay ñaanal nit ki ba mu gis ñëwul doog lay fay wala da ngay xalaat ne am na ñoo xam ne boo leen laajee xaalis dañu yaakaar ne kii def leen bëgg nax. waaw sëriñ si sëriñ si ñoo bari looloo tax ñun ñu duggee noonu di ci ñaane noonu bañ ku xam Sëriñ Saliou Diouf taw Tawfekh nga xam ne da lay liggéeyal ba nga gis nga door koo fay say sarax nag yaa ko moom nag ndax say sarax moom ci say rawaan la ñuy jaar dugg ci say sarax génn la say sarax ne la say sarax nangam la tey jii soo ñëwee fii nii say sarax doon sondeel dama naan la demal bitig ba nga jën juróomi sondeel nga indi soo ñëwee ma boole la ak sarax yooyu génn la say sarax liggéeyal la ba pare yëkkati say bagage teg ko ci say loxo soo demee ba gis résultat nga fay ma di nga gis di nga gis sëriñ bu ko mënut nag bu ko jéem del laaj weexal rek mhm. waaye man noonu laay doxee man. Mhm. kon daal yow say say say ñaan da ngay ñaanal nit ki ba mu gis nga doog koy euh, yewi ay sarax rek man ci ay sarax rek laay dox. Mhm. ak sangat bu mu mën ci doon ak feebar bu mu mën ci doon bu dee mbiru kayit bu dee loo xamante ne ay faru rab la bu dee koo xamante dañ koo liggéey liggéey boo mën a gis ci àdduna ab sëriñ di ko liggéey sarax yaa war a jiitu génneel ko ay sarax. bu dee ñu nekk bu dee koo xamante ne daa nekk bitim réew bëgg a ñëw Sénégal te amuti kayit maanaam nañ déggante man ak moom ma wax ko li nga xamante ne moom lay génnee ci ay sarax ma liggéeyal ko su ma fekk see Sénégal door maa fay na ma fekk si Sénégal door maa fay dama koy liggéeyal ba mu téye ay kayitam ci ay loxoom loolu ba ma koy wax yàgg na de. Euh, sëñ Saliou ci mbirum euh, dañuy toxal boobu ci mbirum ñaan yeeg sarax yi ñëw la ci léegi mbirum àdduna sëñ Saliou ci làmb ji dafa mel ne gis nañ ne yi am na mbër moo xam ne doon na bëre ba daan gis nañ itam nga mel ne ku ci xaw di kii daal maanaam kontaan nga bég nga lool daal ya <laughs> léegi nag dañu bëggoon xam euh, ndax ndax ndax yow da ngay ngemb mbëri wala da da ngay da da ngay samp mbëri. xam nga man ni may doxee maanaam sëriñ su bari dañu koo bàyyeewut xel man du ma génn ci télé yi naan diw maa koy ñaanal waaye man suma jëmmu bopp képp koo xamante ni ne ba li xew barki déem boo njaay ni sama loxo yi ni ma leer ni sama ridu loxo yi ni ma leer noonu la ma leer ndax jëflante naa ak moom. yaa ngi dégg bu baax hmm. waaye du ma génn ci télé bi naan diw maa koy ñaanal Macky Sall sax su ma ko doon ñaanal du ma ne man maa ñaanal Macky Sall déedéet man nekkuma ne ndax la ma séq moom séq naa ko moom ba pare waaye képp koo xamante ne mbër nga su ma la ngembee man Saliou maa lay assuré ba nga am ndam door maa fay hmm. maa lay hmm. wax ji de doo dem ci sëriñ mu naan la génneel ma nangam génneel ma def te nag dinaa la wax lu bari nag loo xamante sëriñ saa ngi koy def nañ ko bàyyi xel ñu bari nag damaa bëgg ñëpp déglu ma am na sëriñ yoo xamante ne dañ la naan dugalal ma nangam ma génne la say sarax billahi soo leen ko dugalee duñ ko génnee sarax dañ koy lekk. am na ñoo xamante ne dañ la naan dugalal ma nangam soo leen ko dugalee duñ ko lekk dañ koy dax duñ ko duñ génnee sarax ya duñ ko ñaan duñ génnee sarax ya dañ koy lekk dañ koy lekk ba pare naan la génneel naa la say sarax yi nangam. waaye bu dee Baye Saliou mii nii su la neexee sax bu ma ko dugalal ñëwal ba ci sa man ma ne la demal nga wuuti nangam nga ñëw dem wuuti ko soo ñëwee ma defal la nangam la war a defal ba pare yëkkati say bagage jox la ko ñun dañoo yore ay loo xamante ne dañ dañoo dañoo ànd ak i sarax ñun ci sarax rek lañ mën a nekk ñun suñu yoon nekkul ci weexal na sarax ya mot rek ñu liggéey la nga teg ci sa bët loo ñu yéene nga door ñu koo jox euh, gis nañ ne jamono bi liggéey am ci liggéey jafe na euh, am xaalis sax moo gën a jafe nag am liggéey te ku amul liggéey doom xaalis sëñ Saliou nu muy def ak ñooñu. waaw ñun moom ci wàllu alal ñun dañ lay liggéeyal ba nga am alal ñun dañ lay liggéeyal nga am alal ci ay saraxit it lañ fa sukkandiku ñun ñun ci ay sarax la ñuy sukkandiku wax la say sarax nangam la soo ko defee ñu ubbi say say say say biddiw ñu ubbi say biddiw daal di dugg ci say rawaan say mbir daal di leer. loo jublu foofa leer ba pare walbatiku ñu xëpp la alal nga am alal soo amee alal door ñoo fay te giñ naa ci Sëñ Tuubaa ñu jëflanteel soo amul alal génnaatal ci média bi nga ne Baye defal na ma gisuma mosta am mm-hmm. billaahi demuma fen demuma fen demuma ndakaaru demuma puut demuma jam ñaaju demuma sàngal kam demuma fen maa ngi fii Tuubaa gii mosuma mais mais nag ñaankat yi nee nañ Dakar Dakar mo Dakar moo moo moo moo gën a xaas de. ñaan waaw Ndakaaru moom ñu bari xam nañ ne Ndakaaru ku fa dem euh, ku fa dem euh, naxe naxekat yaa nga fa di. Mm-hmm. daanaka soo boo xool fii ni bu dee ñuy bind alxuraan ku ci mokkal faatiya dem nga Ndakaaru <laughs> ku ci mokkal faatiya dem nga Ndakaaru toog wut sa sa bopp. yaa ngi dégg wala nga dem engagé appartement. di seete dix mille. waaye wax di caala nag soo engagé appartement war ngaa mën a seete dix mille nag caaxaan si weesu. ndax soo seetee soo gisut yow moom dix mille yi ñëw na moom. ñaari juni moom ku koy seete rek jàppal ne ci ay xeetu tappale nga nekk man gëmuma ko man Saliou. Mm-hmm. billahi gëmuma ko. Mm-hmm. barki Seexul Xadim nit ki man demaa gëmul sax ngay lekk alal goo xamante ne gisagoo ca résultat mm-hmm. man loolu laa gëmut man. nit ki soo koy liggéeyal liggéeyal ko su gisee dina la jox su gisut nga xam ne yow mii gisut lekkuma alalam waaye de am na sëriñ yu bari yoo xamante defal nañ nit gisuñu lekk nañ seen i weexal te leer na ne la billaahi wallaahi taala xaalis boobu ñu lekk seeni i borom ñu leen ko billaahi baaluñu leen ko te ku ci moytuwut yamal xiyam embouteillage su sëriñ dina am ndax ñiy lekk weexal <laughs> yamal xiyam ambatisage sëriñ dina am ñu naan sëriñ ñan la ñu ne sëriñ yi doon lekk weexal yoo xamante ni defaluñ seeni borom dara hmm? ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo fee hmm. barki Seexul Xadim dina am hmm. weexal goo xamante ne eh, nga koy lekk rek te gisoo résultat nga koy lek tegle koy te ko tegale di ko tegle di ko tegle dund ko ay ati at door a faatu seeni borom ñoom ñëpp mayuñ la ko ah di nga ñëw géew de di nga ñëw géew <laughs> di nga ñëw sëñ Saliou tey ñu koy jeexalee question bi rek parce que Ibrahima moo nekk ci caméra bi ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar euh, ñu jeexale ko ci question bi mooy gis nañ ne euh, jamono bi réew mi xaw naa bari ay yëngu-yëngu ci wàllu politique ay ay tension ku mel ne sëñ Saliou di boroom xam-xam di boroomi jinne ku ne xam na jinne moom yàlla dimbale na jinne ba day xam lu ñëwagut sëñ Saliou lan mooy xalaatam ak lan lay joxe ci réew mi ak nan la war a diglee pour ñi nga xam ne mooy coow li ci wàllu surtout ci wàllu politique beeg tëjaate yeeg yooyu euh, ngir réew mi gën a mucc ci yooyu. waaw jërëjëf xam nga man man man man damay rusatee sax taxaw war ki dem wax naa ko ci média yi ma ne leen damaa rusatee sax génn ne ne ne ab sëriñ laa ndax jamono bii li fi xew. am na sëriñ yu bari yoo xamante ne daanaka dañuy wane ne ay sëriñ lañ dañuy yàq deru sëriñ yi rek ba tax na kenn gëmatul kenn kenn wóolootul kenn soo déggee ñu ku génne borom jinne yi jinne jinne kenn du ko moom jinne da ngay làng moom di ko génneel ay sarax mu ànd ak yow di liggéey di la génneel ay résultat hmm. waaye benn jinne goo xamante ne dangaa ñëw ne man maa ko moom jinne goo xamante ne ba sa maam di dund mu ngi dund di ànd ak moom sa sa maam dee mu ànd ak sa baay hmm. di dund sa baay di dund sa baay dee mu bàyyi fa sa baay daal di ñëw di ànd ak moom nga walbatiku ne yaa ko moom hmm. da ngay nax sa bopp da ngay dee bàyyi ko fi dong gon moomoo ko da ngay làng ak moom di liggéey ak moom di ko génneel ay sarax moom mu lay génneel résultat waaye sëriñ si nag dañ dul génneel sarax yi mm. dañuy lekk sarax yi ba pare di laaj weexal yi mm, mm, waaye su fekkee comme ci mbiri politique boobu nga wax noonu politicien bu ñëw su mala la dinga doon président man Saliou ci kàttanu yàlla ak baaxam feek doonoo président man ak man ak yow la ñu jëflante la ñu war a jëflante ci mbiru am am loo war a yëkkati war ma koo jox téyel ma ko bu dee siiw dinaa la defal bayre bu ànd ak muslaay mm-hmm. yaa bu dee samp dama lay samp ba kenn dootu la mënal dara mm-hmm. sa bopp su méttee jàppal ne borom mbaar mi la waaye du question kuy dox ci àll bi nii déedéet mm-hmm. bu dee politiciens yi ak mbëri làmb yi ak woykat yi amul kenn koo xamante ni di nga ñëw jëflanteeg man te ñàgguma la. surtout woykat yi barki Seexul Xadim bu dee woykat yi commencé di yuuxu fii li ngay wax neexut sa baat neexut. foo yuuxu ñu ne woo kee de na gaaw a noppi ñëwal ñu déggante man ak yow. di nga yuuxu ñëpp taxaw feek pare woo kenn du dem <laughs> man maa la wax di nga yuuxu kenn du dem feek pare woo kenn du dem am na jàngkat yu bari yoo xamante ne dañuy jàng ci baas <laughs> suñ commencé ba téye micro bi barki Seexul Xadim feek dem feek jóguñu ba yëlbu kenn du joge foofu kenn du dem ba ci woykat yeeg lépp dama lay defal bayre bu ànd ak muslaay ba pare walbati ko samp la <laughs> loolooy wax ji kon kon li nga li ba waxoon naa dañuy jeexal de dafa am lu wax lu am solo mooy ku jóg rek ne man maay borom jinne yi maay toog di wax am ñoo xam ne ni mbir lay bëgg a xew sax ñu wax cee ba far juub. lo loo ci yàq moo taxit am na ngóor soo xamante ne xaw ma côté fan la nekk ci dëkk tubaab yi. da leen di saaga rek. da leen di saaga rek chaque jour sama doom yi ñëw ne ma sëñ bi xoolal kii nee na diw dina am nangamam am na lu ñu tuddee xam nga waar lañu. waar waar waas waas waar. waar waar waar bar mooma ndax chaque jour ñu leen di fa yóbbu parce que dañuy wax loo xamante ni seen yoo néew ci te wóoru leen te mënuñu ko duñu ay boromi xam-xam borom xam-xam dëgg dëgg dëgg du taxaw naan suba nangam dina am hmm. dina table déedéet soo mënee defal su amee ñu door nga door a wax hmm. waaye doo wax ba pare déedéet hmm. loolu gëmuñu ko hmm. looloo tax am na ñu bari ñoo xamante ni ne dañuy taxaw naan suba nangam waaw dañ leen di yóbbu foofu nga wax mënuma tur wi mu nga noona waar nag du nit maanaam mooy koñ nettali jëf jëfam naka su dul noonu ah maanaam wax loo xamante ni amul waar waar du nit mooy koo xam dañ ko nettali jëfi naka su naka su dul noonu maanaam waar nit la <laughs> loolu la de waaye daal xam naa ne moom nañ war nañ jóge ci loolu football bii nawetaan gii nii hmm. kooku ngóor soosu di bàkku rek nga xamante ni naan borom jinne yi borom jinne yi moom da day moom da li ko dal daa xaw a métti ndax ñaanal Sénégal di leen ñaanal ba ñu gagné Sénégal muy door a dem man loolu jaaxal na ma lool. yow demoo Qatar nee na daa demoon Qatar di waaye nag wax dëgg yàlla fa a demee Qatar ànd ak suyeer yi ñëw. Ah, moo gënoon mais waajooj nam nag boo gisee moom dafa mel ne yenn saa yi day ndamu lool day bu ma Sénégal masa masaan football ba bàyyi day jóg di fecc naan moo dugal moo gagné moo def moo joxe biir bi. waaw xam naa xam-xam bi daa nekk ci tent bi rek. <laughs> <laughs> yàlla baax na sant nañ bu baax nag sant nañ bu baax sant nañ bu baax a baax a baax macha allah xam naa ne daal képp koo xamante ne euh, jëflante nañu ñu fexe rek ba génnee say sarax ak lu mën ci doon ñu liggéeyal la soo gisee résultat loo ñu yéene nga door ñu koo jox fekk Sénégal jamono bii kenn gëmatul kenn mm-hmm. nit day toog ak nit sax da ñaanlu ci moom te fekk gëmu ko day essayer rek ndax daa jaar ci sàmba mu nax ko mu jaar ci Demba mu nax ko mm-hmm. gëmatul kenn mm-hmm. na ngay bëggee jaar ci Baye nag pour nga gëm Baye Sall Sëñ Saliou dina la liggéeyal ba nga teg ci sa bët door koo gëm dëgg neexut nag wejji moom gis da cee bokkut ñëwee nag ñëwal ma génne la say sarax bu dee kilo ceeb la mën na la sa sarax kilo ceeb bu dee pomme la wala banana wala wala comme li sëriñ si xewal ginaar gu xonq ginaar gu xonq moo am problème <laughs> ginaar gu xonq moo am problème ci ci réewu Sénégal sant nañ bu baax. baax na jërëjëf <laughs> kon ñu sant sëñ Saliou bu baax di sant xalil mi àndaloon ci caméra bi ak ñi ko doon assisté ñoom ñëpp. yéen a ngi ànd ak seen portail Baol Média nekk fii ci Mbàkke Bawol.